dikkati naa coow li daal dëgg moom moo di ndax Sénégal mérito na dëgg-dëgg li nga xam ne ñi ngi koy teg fi mu ne ci ndoddam turbine yéen a kaay naan man fanweeri bakkan ak ñeent moo root ci kàcc yoo xam ne dañ koo daldi talal kàcc yay dem di wëy dem ba nar doon dëgg yéen a dee média bi naan man coowal suite boti li nga xam ne dëgg lalu ko ay sos ak i kàcc ay defar ba mu baax ngir bëgg suuxal doomu aadamaa ko waral turbine ne ma lii nag moo jural Sénégal fi mu ne fanweer ak ñeenti bakkan yoo xam ne ñu ci loru fukk ak juróom benn yoo xam ne ci diirub ñetti fan manifesté yu mujj yi daal dinañ cay faatu l'évidence naan man ndax Sénégal mérito na li muy dund saa si nan kon bu fukki bakkan ak juróom benn rote ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar ciy doomu aadama daal dinañuy am ay gaañu gaañu ci manifeste yi juróom ñaar fukki nit ak juróom ñett seen gaañu gaañu metti na ba jéggi dayoo bokk na ci ñoom soxna soo xam ne dafa wann lor ak itam fanweer ak juróom benn yoo xam ne ay takk der leen ñu gaaw gatandu seen i gaañu gaañu balaa muy jéggi dayoo l'évidence naan Sénégal ndax mérito na li mu am fi mu ne source a naan man waxuñu de waaye ku dëgg di nga àttee ci HLM benn jaaykat boo xam ne dafa bëggoon sàmm marchandise am la ñu dóor bal ci biir benn xale boo xam ne doomub gardien la amoon awa avenir ci football ñu daal di yàq-yàqee tànk ba ndaxub bal le quotidien le quotidien naan man police baa ngi def le point xam leen ni nag mbir mi dafa rax nanteye xale yi DSP xam leen ni am na ci manifestant yoo xam ne ay pistolet la ñu yoroon ngànnaay yoo xam ne daanaka takk der yor ñu ko ci réewum Sénégal yéene kaay bi naan man demal ci banlieue bu Ndakaaru foofu daanaka toolub xare lay daal di nurool ndax yàqu-yàqu naan mbir yi rax na te takk der yi wax nañ ko commissaire Diop naan ay arme de guerre la yenn manifestant yi yor loo xam ni mën naa tukkalum réew saa su ne Ismaïla Madior Fall naan état bi tey na mbir mi ci loxoom de waaye loo ci mënti dégg doy na waar ginnaaw raay moom ci week-end bii rek laa ni la ñaar ci doomu aadama daal dina koy faatule turbine naan maan ci ñetti fan fukki bakkan ak juróom benn rot na ci réew senegal critique yéen kaay naan moo taxi takk der yi fi mu ne ngemb nañu fas yéene jaamaarloo ak ñi nga xam ne dañoo bëgg suuxal réew mi di ñaan askan bi ñu daal di leen di topp loo ci mënti déggi takk der yi moom geetaru nañu ngir jàmm del siwaat ci réew mi l'observateur naan li am ci réewum Sénégal fi mu ne tiitlu na aji saar coow li coow li yow a aji ananga yéeni kaay futur média bi jox kàddu psychologue boo xam ne nee na aji moom loo ci mënti dégg li gën a ndaw ci li koy dal boo maytul dépression la ndax lii ci boppam mu teg askanug réewum Sénégal métti na wala le soleil yéen kaay naan ginnaaw fukki bakkan nag juróom benn bu juróomi téeméer ci doomu aadama teg nañ leen loxo ci manifeste yi am na ci ñoo xam ne ma ne la ay mineur lañu am ci ñoo xam ne ñu ngi jël jëlee bitim réew leen fii ci réew mi ay manifestant yoo xam ne ay arme de guerre la ñu yor ay arme blanche yoo xam ne ay jaasee ki paaka lan ngir faagaagal askan wi ñu caxat caxatee ay magasin ay band yoo xam ne dañoo daal di rax ci mbir mi daal di soobu jaxasoo ak manifestant yi UCAD ñu daal di koy caxat caxatee ba maar day taali la Soleil yéen kaay naan maan ba nii teer bi mënta daw Dakar dem dikk ñu daal di koy tëggat ñu soxla fi mu ne ñetti téeméer juróom fukk ak juróom ñaari million ngir defaraat bus yi nga xam ne daal dinay yàqu ñàkk benn milliard yu teg ñaari ak juróom fukk ci million direct news daal di jox kàddu mambay ñang mi nga xam ne ma nga naan ku yebul ci réew mi day daal di tëye njaboot ndax nag situation bi dafa am ñoo xam ne dañu caa rax ba maar day taali te coow li coow li mooy ña waral coow li génnuñu ña nga xam ne ñooy ñuy doom ñoom la ñuy faagaagal mambay ma nga naan xam nga Ousmane Sonko bu demee bay tay la këram goo xam ne lu ëpp juróom-ñeenti milliards la ko taylee la mu nar ci réew mi du ja ndax jàpp na ni kut ko kut dafa bëgg nekk président te nekk président ko nar a xañ mën naa mi ci guuta duudukat ci a déet fi mu ne kay ku fi yëngal ñu daal di rëq sa ndigg moom kay nguurug Sénégal jël nay responsabilité am ci mbir mi am na ñoo xam ne république bi lañ bëgg nërmeel tuudu naan li tax sunu manifestation bu S24 bi ñu dàq ko ba jëmmi jamono te nag di xamal ña nga xam ne ñooy manifester ne ñi ngi nar a sóob ci ëllëg goo xam ne daraam wóorul ñi ngi nar a sóob Sénégal boo xam ni état de droit la ci fitna goo xam ni maar day taali sunu système démocratique fi mu ne ñi ngi koy daal di caxat caxatee àdduna wërngal këpp si ngir fas yéene réeréewum Sénégal respect ordre public bi moom day daal di am ci réew mi respect ci wàllum justice day daal di am ci réew mi te dee su ko négocier député Abdoulaye Diagne ci yéene kaay bi di xamle ba tey ne waaye fi ne ca xat xatee gi métti na ba jéggi dayoo doxantu leen mani la ba université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru UCAD lañ fa daal di yàq daal di nay jéggi dayoo lii ñu fa yàq nii étudiant faatu na ci biir UCAD bi ma ne te lu ñaaw lii ma su faa am moom coordonnateur bu mouvement élèves étudiants républicains di xamle ni lépp loo xam ni nguur gi defoon na ko ci milliards ci université bi ngir daara joojee nekk bërëb bu ni wutee xam-xam waaye bërëb boo xam ne ko fi nekk sa xel dina dal caxat-caxatee nañ ko yàq ko ndax loo ci manti déggit université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru muy faatug Balla Gaye ak beneen a ci yem diggante takk der yeeg étudiants yi sànninte xeer ak lacrymogène moo ci mës a am waaye li ñu gis ni ki barki démb ay jaaseeg yeneen i ngànnaay génn Abdoulaye na nañu moytu ndax réew mi fi mu ne pëcc xoona may mun a si soxo xuma naan kon du daara ju kawe ji rek moo am jafe-jafe yëkkil l'évidence nga déglu communiqué bu mouvement national bu enseignant yi xam leen ni fi mu ne suñu réew yegg na foo xam ne ñu ngi jël tuut tànk yi di leen dugal ci xeex boo xam ne du seen yoon xale yi am fukki ak juróom jàpp ñaar fukk ñu leen di dugal ci xeex boo xam ne daanaka ay bouclier lañ leen jàppee may mu a naan xale yi nga xam ne ñu ngi leen soobu ci xeex boo xam ne du seen yos metti na waaye ba fa muy mujj état de droit mooy mujj am ci réew réewum Sénégal taalkat yi yàqkat yi ña nga xam ne dañuy saboté jàmm ji nga xam ne moo am ci réew mi ñoo ñee état bi daf leen war a faagaagal ndax fi mu ñu ngi bëgg dugal réewum Sénégal ci guuta goo xam ni maar day national yi te naan dara dialogue bi rek nañu geesuwaat dem ca dialogue bak la nga xam ne ña ngi ko fay daal di jàngale ndax nag loo ci manti déggit woote violence nga xam ne may mun a nee na am na ci réew mi bu ñu ko toppee day Sénégal dina suux ñi ngi xep xal mu nar a lakk suñu daay suñ demee ba senegal ñu jël ay tout tànk di leen jëfandikoo ñu leen di faat ak di leen caxat-caxatee réew mi yegg na foo xam ne buñ ci jógul làmbaay ñaaw te jóg gi mooy ñun ñëpp ngembul président de la république Macky Sall réew mi ko di jee naan waa kaa Ousmane Sonko naan ko déet ñel kàcc ci ndodd kàddug Ousmane Sonko l'évidence yéen kaay naan ko ñaaw na daal li dal réewum Sénégal fi mu ne ñaaw na 24 heures yéen kaay naan yokk ci politiciens yoo xam ne muy bu opposition bu nguur gee ci yam au lieu ñu daal di dalal nit yi dalal xool yëg dënn yi dañu yokk xar mi karaw ku ci nekk fa nga féetee di fëgg sa dënn naan samay ñoñ ñoo am ndam l'évidence naan kon suux suñum réew ci guuta goo xam ni maar day taali tribune yéen kaay naan kon boole ci ñi gàmmoog ñi ras dem fas mi police nationale xam le saisir nañ ko ñu daal di leen di yàq sàcc leen ay ñu daal di koy caxat-caxatee ay magasin ñu daal di koy sàcc yéeni kaay bi dee média bi ba tey naan maan benn restaurant boo xam ne mi ngi fii ci ndakaaru dañ ko daal di caxat-caxatee xale yu jigéen ya fa doon liggéey ñu violé sàkku leen juróom-ñaar ci bus yu cathédrale bu ndakaar ñu daal di koy taal vox populi naan maan moo taxit évêque baa ngay woote jàmm nee na dal ci réewum Sénégal ko def lu ko may làmbaay ñaaw direct news naan maan xalif général des mourides nee na bàyyi faali nañ daal di wër ndombu Touba képp koo xam ne yaa ngi fay def ñaaw téef ñu daal di koy jëflanteeg yow yéenekaay bi ba tey nan man xalif général des woote na jàng woote saraxe ñaar fukki dërëm ngir réew mi am dal waaye woo askan wi ci ñu ànd ak dalug waxtaan ndax fi mu ne réew mi daal fa mu jëm lëndëm na ñaaw na l'évidence yéenekaay naan ak lu mën a am Sénégal daal lii ñu koy teg fi mu ne méritoowu ko benn yoon ak lu mën a am mbokk yi ñu ñaan jàmm te yendoog jàmm way way way way a ah dama wax mbokki adduna laa njëkk a wax waaye waaye maa ngi wax mbokki Afrique maa ngi wax mbokki Sénégal ah dama wax nag kaaw deey pare na nag ñëw fi nga xamante ne nii moom mooy kër ndaanaan TV Kër Ndaanaan TV nag fii la mburu mi di tànge de loolu la Lamine Samba wax waaye damaa wax fii nii Kër Lamine Kër Kër Ndaanaan TV kaaw nee na fii la affaire yi nar a neexe nag ndax fii la émission yu baax yi nekk eh, fii la ñu waajale li nga xamante ne nii mooy série bu extraordinaire ay Kër Ndaanaan def leen ndànk nag ku jekku da ngay baal doole yemul Kër Ndaanaan of leen mu sedd